remercier waat sénégalais yi rek ndax looloo waral tey ñu daje fii chez Katia di profité di remercier sunu xarit Elimane Lam vraiment ci jàppandal gi bi nga xamante ni bi ñu waree def point de presse bi mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu jox ñu fi ñu mën ko fi def Elimane merci encore yàlla na la yàlla fay donc di wax ni Fatou. Euh, ku fàtte li la fal rek folleku donc man sama jeunesse dama ko dund ak sénégalais yi sama ko jeunesse sama jeunesse dama ko dund ak la musique sénégalaise donc euh, bi may dugg si musique mbëggeel ak yëg-yëg moom ma dugaloon ci musique ma bàyyi woon suma jàng bàyyi woon suma métier donc peut-être ma am yëg-yëg ne am na lu yàlla def si man ci sama baat ma bëgg musique aveuglement di dem di ko topp di ko topp ma gis si lu ne daj si nag lu ne ndax tout début ay difficile kon tey sum bu yàlla di dogal àdduna di dox jamono di dox ba ay surprise di ñëw yoo xam ne xaaruma ko ndax ku xamoon sa suba doo sonn da ngay toog rek ba waxtu bi jot nga dem jëli ko waaye nag nit buy dem day demee yëg-yëg day demee volonte day demee aussi yaakaar donc moo tax ñu naan yàlla bu yàlla tas yaakaar alhamdulilahi rabbil alamin tey suñu métier yóbbu nañu partout dans le monde dem nañu fu bari te foofu ñu demit suñu métier rek moo ñu fa yóbbu leneen yóbbuwuñu fa ngir représenter suñu réew te buñ fa demee dinañ xam li ñu fa yóbbu def ko ci fulla ak fayda représenter suñu réew dellu si waat fii si suñu keppaaru yaay yi ak suñu keppaaru papa yi ndax fii la ñu am notre cher Sénégal moo ñu gënal lu nu mën a am Uh-huh. sax sa manager sa uh-huh. sa la sa lépp la ñu gis coow nag am na fan yi coow am na démb parce mm. problème boobu am ci diggante waa Faramaren ak waa Subatel lan mooy ci gis ak ban jàngat nga am ci loolu waaw yooyu nag wax dëgg yàlla maa ngi jéggalu mais tey loolu andiwuñ fii tey li ñu fi andi mooy euh, liggéey ci benn mission mission boo xam ne tey euh, mooy African Community et Conservation donc tey loolu moo ñu fi andi euh, et vraiment bëgguma Euh, euh, fauché débat bi bëgguma fauché thème bi ndax nit booy wax rek waxal ci fulla ak fayda ak li nga xam ne sénégalais yi loolu moo leen yitteel ndax ku ne xam ne ni tey jigéen dafa sonn xam nga déjà yaa ngi nii heure bi yaa ngi ñàkkatooy xep di liggéey donc te mission bi yéen ko moom nu ñuy def ba aar leen nu ñuy def ba seen gëdd seen àq ak yelleef ngeen jot ko nu ñuy def ba aar tey seeni doom maanaam xale yu jigéen yu ndaw yi ndax bu njëkk ba dama daan dégg ñu naan mag ñi xale yi góor ñi rek lan daan nangu ñuy jàngi mais daaw ñu nang xale bu jigéen di jàngi waaye léegi tey loolu dañ na mais nag des na ci àll yi au fin euh, euh, du du pays donc il y des villages yi nga xamante ni tey ba tey loolu dafa exister donc tey je pense que ni am na loo xamante ni mën nañ ci wax muy wàllu african communi euh, community et conservation donc euh, je pense que tey moom foofu lay focus quoi voilà. Mmh. donc yaa ngi koy wax léegi ci wàllu jàng bi. Mmh. mais est-ce yaa ngi xalaat ci wàllu faj bi ndax amoon na fi fan yee ñu weesu euh, ku doon am doom. Mmh. far ñàkk bakkanam ci ay anam yu doy waar. démb aussi ñu gisaat ko fee ci Kédougou. mu nekkaat beneen anam boo xam ne te. ni mu ni xale bi gaañoo déjà ñu ko expliquer yaay ji aussi gaañu ci côté santé bi lan nga la ñuy xaar ci Pape waaw soxna si man côté santé bi mën naa ne moom laa dooree ak sama métier ci benn ci benn bénévolat bi may ànd ak euh, sunu yaay Eva Marie Coll jamono yooyu mu nekk ministre de la santé su ma mu nekk na ko ñaari yoon bi mu koy njëkk a nekk maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla euh, yokk ay fanam. Euh, dañ ma daan woo rek ne dañuy xeex paludisme ma dëkk si banlieue bi su ma saan taw nawet jot banlieue da daan taa dañ daan fanaanee ngàcc ba bër set bu ñu ngaccee boo xëyee yooyu di la mat rek da ngay feebar ngàcc naa ba sonn ndax ku wax ginnaaw raay ne inondation mhm. donc je pense que ni loolu yàgg naa si liggéey dañ ma daan woo bu événement amee sensibilisation pour lutter contre le paludisme du ma fayee ko suñ ma woowee dama naan non bëgguma caché naa ñëw accompagner leen ministère de la santé ainsi de suite ainsi de suite loolu yàgg na war na def léegi ay 15 ans 17 ans beneen bi si topp aussi jamono yi nga xamante ni euh, xale yu ndaw yi euh, bi ñu faatoo ci hôpitalu Tivaouane bi euh, en tant que leader d'opinion en tant que aussi porteur de voix génn naa vraiment massaw ko mettitlu ko donc xale bi nga xamante ni aussi gaañu na bërki démb dëgg yàlla ku ne xam na ne doom dafa sax si xol bi ma ko liiree rek yeggalewu ma ko parce que dafa metti donc ñu ngi leen di relancer aussi ñu gën a góorlu gën a yokk seen pastef ak seen efficacité ba yu mel nii du ma ne du am waaye muy sore lool ndax nag àdduna moom lu nekk daf si xaj ndogal fu nekk lay génnee donc maa ngi ànd ak famille boobu di leen masawu di leen masawu di leen ñaanal nag yal na leen yàlla may xolu muñ ndax doom dafa sensible trop trop trop trop soxna soo soosu nga xamante ni jóge na fi euh, bàyyeeku na fi yaa moom it yal na ko yàlla xare aljana voilà waaw boo amoon tey looy wax ci musique Sénégal actuellement fi ñu toll nii lan nga ci wax. liggéey rek man awma commentaire ci musique sénégalaise liggéey seul le travail mhm. lépp ci liggéey la soso li ngay def nii sax liggéey la boo boo liggéeyul rek doo fayeeku mhm. seul le travail paye